Mayonnaise Chef Aïda, la référence. Yay chef. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveur. Yonema, un prix, livraison comprise. Je Diop tey da ngaa ah ouais mais dans la fi seet si nag tey. si ma. te maa ngi kër ki ne moo dàq loo gis da ngay ñëw da ngay lekk bu suur ba pare na xool nee na ma dara lu ci fee amul coono amul dara. da may dindi sa grand boubou bi nga ñëw ci wàññi ma kii la. kii ne da ngay je suis sérieuse. dama si An man def. dama lay wutal wéttal. wéttal. allo. tonton comment tu vas mën nga jaar. waaw ngi lay xaar.

ako koy defal. dañuy defar farce bi jox ma huile bi huile chef Aïda. ak euh, viande bi comme que wax nga no, bañ a togg kay. yaay daw yónnent yi. waaw non man nag dama mës a sawar ci yónnent. ay di pot nag déedéet. lii dama ko yàgg ragal. <laughs> nii moom. kaay toogal. daf nii waaw

du du question de ñàkk fayda wala wàccee sa bopp wax ah, bàyyi leen seen xalaat yooyu. c'est que il y a pour te rapprocher ak ki nga nekkoon quoi que di togg di togg. mais togg bokk na ci li leen di rapprocher. gis nga man tant que nekkuma sama salon. Hmm. tiim sama télé di seetaan tey sama télécommande di zappé. Hmm. nga romb di daagu si waaj bi def nii génnee jël kuddu ci noir génnee yéeg wàccee di ma gêné si télé bu naan poussé waaye lu maa ngi seetaan loolu tant que aw ma loolu yàpp bi ñor na waaye on a laissé mijoter 15 minutes léegi suñu farce ñor euh, na dañuy def vermi séchage bi. non bravo parce que lii moom faire ça chaque jour il faut du cœur quoi. voilà. des fois on se permet naan ay loolu dafa saf xoromaat. togg moom lépp ci xol la. imagine nga war a dem ba sëy te mënoo togg. ah fekk ci maîtrise rien. waaw am na ñoo xam ne dañ leen di delloo sax pour ñu dem jàngiwaat. non man moom soo amee jëkkër bu mel ni man moom ils sont. Eh, man mah ma di sandwich mana? man. non dengan yow da ngeen di wax rek. man man daal assuré ma lenn. cere soo ko mënee. mën ceebu jën. baal naa la lépp. mais itam da si baax yi nga surtout plat yi nga xamante ne on cuisine du cep, on fait sauce soble ak li nga wax nii léegi sax cere ak yooyu noonu voilà farce bi ñor na léegi dañuy dem voilà C'est la, la farce. organisme Fatou Kiné. da nga prison. non bokkul man eh, su ma yëgoon ne kii nga invité duma ñëw parce que ñii kii moo ma jaxase ak waa tribunal. ndax wax dëgg fa ne yàlla yow laa faral. non dafa nag mais ñëpp man la ñu faral mais du yow rek. ci naka wala mais da ngeen ma tooñ. li nga xam nga laaj nañ ma ndax euh, bëgg nga ko. waaw may leen bañu ma ko. mais bugguma ko parce que jikko moo ma neexul. yow du sama jikko yow est-ce que yow a lijjanti nga naka la da nga dugg foo xamul. yow man ak Marichou xam nga fan mag mag bu toll ni man. juddoo ci dëkk bi. dox yor ñetti jabar. Mm. nga na man. joxal ko histoire daal alaaji yow yaay victime bi. Fatou yow yaa ma tooñ. bi nga ma woowee na ma tonton. boo ne ma woon boo ne ma woon pot mu ngi fi monsieur Diop damay jubal sama kër ba mu ñibbi ma soog a ñëw. non non il faut nag il faut ngeen toog ngeen. xanaa xam nga ni mari dafa dee ci sama xol dafa dee ci sa xol mari dama ko defal waaw ko mu waaw mari fan lay gën te nit du ko apprécier d'accord na mais dama ko fabriquer dama ko toléré dañ ko toléré peinture ko waaw defar ko waaw ba mu yañ pare du deug yow ni mari ah mo la togn d'accord na ñun sax ñoo la togn yeen mo togn mais est-ce xam nga ne tay di su condamné yow lañuy condamné pourquoi parce que da nga waron lijeenté ba yang gis nga jigen bala nga ciy dugg

ñoom seen virement dem na banque ba pare. prêter wuñu attention ci ñun. temps bi ñuy perdre ci ñoom. man je crois que ñu perdre ko suñu ay soxla ak suñu famille moom moo. parce que man sama soxla ci cuisine bi bu ma liggéeyewul. la ma koy jàppale. damay ci ceeb laay commencé. Ah. damay tànn ceeb. Nettoyer la cuisine bi mu Je su ma xol li terre yi ma bu dama koy sax wax ma ne parce que bo toujours da ngay xorom xorom sérieusement waaw Vous sérieusement ngeen vous jigéen rek ñoo da di. voilà ku alaaji yow Vous nga na wax nga ba génn Vous min Vous ko bu baax baax <laughs> que ñëw na est ce que mën Vous wu nice tranquille mu gérer d'accord <laughs>

def nañ suñu farce day dem jël suñu marinade. d'accord au frigo ñu uh-huh. ñu def ko suñu accompagnement léegi añ. na loo du ma la ko mos a baal nag. dama sa benn benn genre irum quoi tonton bi nga may dóor <laughs> si wetam nii ñu koy seetaan du ma a fàtte nga ne dipp rek dafa tiit <laughs> xoolal ma daan mu ma tonton Pod. billahi de martatu ba do fay tam ma sama yoon nekk si mer nak affaire bi japp ko mais barkal bu li complètement sama méta effondré waaw dugal ko ci foot bi est ce tam do bay alay mu fatlikou jamono ala jamono soko waxul won sax dama koy def togg rek la meun euh fatine ci man mhm. togg rek la meun mais sa gënaal bi ma sha Allah alaji ñaari sauce lay defar benn sauce moutarde miel ak euh, beneen sauce euh, bu wax sauce poivre. d'accord voilà les sauces moutarde miel bi moom yaa koy defar. <laughs> baax c'est simple. baax ngay jël moutarde bi. Uh-huh. donc. Euh, léegi defal moutarde bi fi. ci ci ci plat bi ah. waaw ki man ki ne man na togg de man xam nga man dama daan dee ci campagne façon togg bu nekk def naa ko ak lan laay jëlaat léegi. non dool leen moutarde bi dafa moutarde bi yëpp. lépp lépp ci biir dafa lépp ci biir. dana saf moutarde. donc miel baa ngi nii. miel bi damay sotti ci kaw moutarde bi. waaw waaw waaw lii moom xam naa ko parce que daan naa ko def lépp laay sotti de. day gën a neex rek de doy na. waaw doy na. voilà. léegi nga def

Pour faire ma sauce au poivre vert, je jette un filet d'huile chef Aïda sur ma poêle bien chaude avant de verser mes oignons découpés. Si je fais loolu ba noppi ma vais ci sama fond de veau fond de veau est un assaisonnement bu sel..! la je dina jox de togg goût bu jéggi dayoo. su loolu ma poivre vert bi tout est door a crème liquide Yok xorom ak tuuti poobar yëngal mélange bi ba lépp jaxasoo bu baax sama sos dal di pare ngir defar pomme sautée damay sànni touti huile chef aida ci sama poêle bu ensuite je rajoute mes pommes de terre découpées en dés ma bàyyi mu mijoter 5 minutes dal di assaisonner ak poivre ak xorom ay ak persil bi lay dag ay dagg sew dal di koy bolé ak mélange bi pomme de terre sautée bi dal di pare Il na. ma bëgg si <laughs> ah Chris. vous ñaar deux, c'est ne la ak mais mais. mais ci man la ce que je loolu moom c' est la ñu. Hmm? loolu ci man C'est ko déggee. et man sama loxo ci bi. le chef Aïda bi C'est hein? bi may ma ci

non mais c'est incroyable ah. Hein. yalla xam na non mais El Marichou ba ko waree bañ loolu moom koy nettali gars yi xoolal may Hadj Mbaye. <laughs> gisul lu Marichou. wallahi ay mbéj def ñii di di xoolal mbéj xoolal daf ko bon tayu ko quoi. moom Marichou nek ki mu tey mo génn ci jeu sax. Oh. non xoolal def nii. bobu mom bobu mom c'était non mais c'était c'était <laughs> non mais non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que premier jeu

Mayonnaise Chef Aïda, la référence. chef. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveur. Yonema, un prix, livraison comprise.